jàpp loolee nag euh, gannaaw liggéey boo xam ne def nañ ko ci diggante ñaar fukki fan ak benn ceeru sàttumbar ba benn fan ceeru octobre 2021 ci lañ leen jàpp jàppale nañ it xaalis bu toll ci euh, euh, junni ak ñaar fukk leneen lu ñu jàppit moo di ay téléphone portable ay yére yoo xamante ne ji mooy yére toile yi ngir bu dee taw ak ay mbuusi ndox ak miskit ak ay bonbon ak yu ni mel loolee lépp ci opération bi lañ leen tegee loxo ñee ñu jàpp ñu ngi leen jàppee ci diggante noota guy jama mbuur ak kafuntin dañuy teewlu kàddu kàddu yu leeral yu bàyyeekoo ci capitaine Awa Gueye commandant gendarmerie bu Mbour. ci xexu mbirum xalé yi jël gal gi di tukki suñu njiit au commandement de la gendarmerie jël na ay matukay pour xeex loolee surtout supérietu magal bi. euh si loolu lañu am ben renseignement bu ñu doon wax amna ben gal bu doon préparé wu pour dem Espagne ñu daal di teg benn dispositif euh bo xamantene pour empêcher voyage bi du am ak japp ñi nga xamni ñoko doon organiser ak ñi bëggoon dem. jàpp nañ nag fukk ak juróom benn nit mooy ñaar ñi nga xam ne ñoo ko doon préparé ak ki leen loge woon ki leen dëkkaloon ak fukk ak ñetti xale yi bëggoon dem enquête bi nag ñu ngi koy wëyal gendarmerie mi ngi ñaax population bi bépp information bu ñu am ñu woor